yokk te képp koo xam ne yokk nga ko ay daan mën naa lalu si sa ndodd mën nañoo dem sax ba teg la loxo mën na la mën nañu laa jébbal procureur a mën nañu laa jël sax dugal ci kaso bi yéen a kaay gi di 24 heures a nee na en tout cas li amba de sala li nga xam ne mooy ciment bi yàggatul dara ciment bi dina cher ba maara day tale maanaam njëgu ciment gi yàggatul dara dina yokk li nga xam ne moo ko waral bokk na ci guerre bi nga xam ne jamono ji moo am ca diwaanu a kaay na tamit ñi nga xam ne ñooy waa Dangote ñoom tim nee nañu li ko yokk yéen a kaay gi de li nga xam ne mooy yokk ci réew a bari ndax guerre nga xam ne moo am ca diwaanu Russie ndax nag waa Russie ñoom ñoo ngi dànkaafoo nee nañu lu jëm ci wàllum mbele bi mën yokk lu jëm ci wàllum lu jëm ci bi maanaam loolee tamit mën yokk yéen a kaay gi de la tubina ñu koy fekk fa waa Russie waa Russie ñoom nag seen ambassadeur bi rafetlu na bu baax a baax maanaam gi nga xam ne maanu na ci guerre bi gi maanu ci guerre loole nag waa Russie ñoom rafetlu nañ a baax yéen a kaay gi de enquête xëy ñu xibaar bu Sénégal dina yi yéenekaay gi de Le Quotidien wax ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi ñi nga xam ne ñooy acteuru santé yi ñoom nag la ñuy sàkko yeneen traitement maanaam seen situation seen nekki ñu daal koy xoolaat ñi nga xam ne ñooy waa SAEMS jàngalekat yi ñoom tima ab statut spécial la ñuy sàkko yéenekaay gi di Vox ñu koy fekk fa Bara Gaye mi nga xam ne mooy directeur général bu service national de l'éducation et de l'information pour la santé di xibaar naan ñu jàngoro ji nga xam ne mooy jàngoro yu roño lu toll si junni lu toll si junni ak juróomi téeméer ak fukk ñoo xam ne amee nañu jàngoro yu roño ñoo xam ne ngi xaar ngir nag ñu defal leen jalis maanaam xaar bu yàgg bi nga xam ne ñi amee insuffisance rénale ñoo ngi koy xaar xaar boobee rek am ñu bare bari ñoo si ñàkk seen bakkan at mu jot lu toll si ñaari téeméer ñoo amee jàngoro yu roño danañu faatoo yéene kaay gi du sursa nee na lu toll si juróom ñetti téeméer ak juróom fukki junni ci ay nit ñoo xam ne amee nañu feebar bi di roño ci biir réew mi di Sénégal maanaam huit cent cinquante mille personnes ko amee yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ci xalim ak Assane Samb wax na si ñi nga xam ne ñooy faral di yëkkati ay kàddu di déraper di wax ay njombe ak i giraawaale bëri nañ lool ci réew mi ndax imaam Lamine Sall fan yi nga xam ne moom la ñu génn wax na fi ak tooxi doona koo xam ne doy na waar a musiba ak mbelengaana ñi nga xam ne ñooy catholique yi ñu ne déetawaaye Pape Amadou Sarr mi jiite woon dara moom ti ŋàññi l'islam ba xolam sedd yéenekaay gi ne na ay at ci ginnaaw tamit professeur na fi ak giraawaale ndax dafa waxoon ne jigéen ni nga xam ne moom la ñuy sexy maanaam gàtt li sol loolee dafay provoquer viol yéenekaay kaay gi ne na en tout li ñuy wax mooy bala ngaa wax nga xalaat bu baax a baax journal bi de la témoin ñëw na ci personnalité yi nga xam ne maanaam nag seen wax ju rëy wala seen wax ju ëpp moo tax ñu daal leen di dàq liste bi si nee na Moustapha Cissé Lo wax ju moo taxoon ñu daal di koy dàq ci parti bii de APR Ousmane Sonko wax ju bari moo taxoon tamit ñu dàq ko impôt domaine ga nekkoon yéene gi nee na wax ju bari moo tax colonel Abdou Aziz Ndaw moom tam ñu dàqoon ko ci gendarmerie teg ko ay daana capitaine Mamadou Dieye moom tam wax ju bari décharge moom ti ma ay wax moo taxoon ñu dàq ko ba si sóori kaba wax ci mandat bi Moustapha Diakhaté moom ti mi wax ci mandat bi moo tax ñu dàq ko APR ak capitaine Omar Touré mi nekkoon gendarmerie section de recherche moom ti ay waxam moo taxoon ñu dàq ko yéen a kaay gi di réew mi ko di jen xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm nag ci mbirum Boffa Boyato maanaam nag juróom benn fan ci weeru janvier atum ñi nga xam ne ñoom lañ rayoon ci ci weeru mars